partie loolu dina doy waar de parce que euh, parce que pour rejoindre li nga xamante ni moom nga wax ba tey ci gisee bi nga xamante ni moom président gisee na ko ak cadre unitaire waaye itam société civile beeg jàmmi réew mi euh, ci teewaayu ki nga xamante ni moom moo di suñu grand di Mondiaye Cissé digital ONG 3D euh, ñi ngi xamle ni moom Mondiaye Cissé si boo xam yëkkati na ay kàddu ci boobu la daje di ko xamal ni ko président ñi ngi ñaawlu violence yi nga xamante ni bu loo amee dañ koy teg ci kaw opposant yi mais ñu gis ni président tontom moo nekkoon euh, du opposant yi est-ce que tamit euh, loolee mun nañu jàpp ni euh, ay nerf ñoo ko def parce que moo njaay question moo nekkoon li mu doon clamé président mooy que te jii ba ñu gisee yenn jàmmaarlo dañ ciy gis présence ay nervis yu ni mel te loolu day gën a favoriser li nga xamante ni moom moo di violence président xamal ko ni ko est-ce que nervis yooyu mën nañ jàpp ni samay nit ñoom ñoo ko def déjà kon en quelque a blanchir un li nga xamante ni moom mooy ay nitam bon kon est-ce que tey jii xaatim charte boobu moom dina déggoo bu fekkee ni euh, ñaari camp yëpp ku ci nekk da ngay rejeter say faute. Euh, voilà loolu moom déjà euh, du loolu de la bëgg mën ci Sénégal affaire ay daw responsabilité fuite en avant blanchir kii làq kële loolu république warta ta doxee noonu ngor ak mandu ak justice mayewul loolu. Mm. réew mi ñun ñoo ko bokk na ku nekk cëral sa moroom ku nekk euh, àqam ak yelleefam ñu jox ko ko. Mhm. Euh, donc euh, affaire bi du affaire défendre sa bopp. wala mhm. défendre diw affaire bi pour noonu mooy défendre stabilité Sénégal. Mhm. un homme d'état noonu ngay mel mais doo viser rek ak ay élection ak ay carte ak ay pouvoir bu muy am ku nekk opposition tamit doo viser rek naa daaneel nguur mais di nga viser toujours aussi intérêt réew mi chaque fois act booy posé est-ce que lii su ma ko posé. baax na ci réew mi wala su ma ko posé opposant yi nag léeg saa yi dafa mel ni daaneel daaneel nguur gi rek moo leen yëkkati de parce que seen discours yëpp euh, foofu lañ koy accès waaw léeg ñu xaaba des fois xaabaabal euh, bu baax a baax léeg ñoom seen bopp tam ñu tëkk nguur gi et cetera et cetera gisoo temps yëpp ñu ngi menacé nguur gi troisième vague bu ñëwee di nga xam bon xam nga yooyu bu ko defee waa jële tamit xam nga kilifa tam boo tëkkoo moom it day wane boppam mm-hmm. boo tax gisoo temps yi président Macky France kenn dama xooxatal ma ne bon république yu xooxatal nañ nekk léegi <laughs> discours boobu tamit jur fi coow de imam discours boobu raté na ko raté na ko xam président Macky Sall moom côté communication moom dafa limité waa aka limité communication mu liirul liirul dafa nerveux liirul day mer. d'accord te doyen doyen Amadou Ali mm-hmm. daf ko doon wax ndeysaan yàlla na ko yàlla yërëm. amiin eh, am na conférence yu bëri mu doon def dama ko doon suivre mm-hmm. mu doon wax mu doon wax ne Sénégal maintenant on est dans la république du siif du jiiro et du foqarci. Mm-hmm. ma ne ko loolu koy nekkatul république siif jiiro foqarci loolu koy nekkatul république dañ koy pàccoo. jiiro bi te day république du xoqatal. et de la vague. actuellement Sénégal mooy <laughs> président ne man kenn du ma xoqatal man ne ko troisième vague bu ñëwee du la fi bàyyi <laughs> waaw moom nañ jël suñu bale bagage bi ñëpp man ma wut fu ma gàddaa yi <laughs> dama bëggoon Sénégal réew mu neex demal bay dem doo fi bàyyi teg ci yoonu mm. ah, ñu ñuy jongante politique bu silvisé ku gañ jël mm-hmm. ku gañ ñu bàyyi la nga gérer mm-hmm. et cetera syndicat yi doxal li ñu bëgg a doxal secteur bu bëgg a grève nga def sa préavis ñu mm-hmm. déglu la et cetera mais euh, affaire rek ay xoqatal ak ay euh, énième vague doy na waar na waar euh, donc je rappelle que vous suivez votre émission Sénégal VSD yéen a ngi teelu nag jama jula ay kaddu euh, kii di Imam Kanté tey nag ñu dalal ko fi rek ngir mën a waxtaanee jafe-jafe réew mi ndax day baax réew mu amee fu mu toll ñu daal di jël ñi nga xamante ni ñoom ñooy suñuy kilifa ñu toog ñu waxtaanee réew mi ngir gën a mën a indi apaisement comme niñ ko tàmmee di nemmeeku ci ay kaddoom muy dëggu euh, lu nga xamante ni moom la yëg pour wax ko te yàpp ni mooy dëgg rek moom Imam Kanté dañ koy nemmeeku bu baax a baax ci ay prise de parole am Imam ba tey jëm ci wàllub actualité man dama bëggoon fa nga fàttali ma tuuti euh, lan la lislaam wax ci faat bakkan pour mun ñu mën a dugg ci euh, mbirum Barthélemy Diaz ci ci tënk rek mhm. ci tënk rek pour wane importance bi ko lislaam jox da ngay jàpp ne alquran ànd na ak concept boobu nga xam ne mooy dox tey ci àdduna bi te ñu koy wax crime contre l'humanité mhm. euh, maanaam dafa mel ne kon boo faatee benn bakkan dañuy jàpp ne da nga euh, def njombe jëmee ko ci humanité bi yëpp xam nga loolu mooy crime contre loolu da koy fekk ci alquran man qatala nafsan bi ghayri nafsin aw fasadin fil ard fa ka annama qatala naasa jamian al aaya bi dafa leer nañ ñi koo xam ni faat nga bakkan ci tayeef te bakkan boobu deful lu tax ñu war koo faat deful benn njombe boo xam ni war na tax ñu faat ko nga faat ko ci tayeef dafa mel ne bakkan doomu aadama yëpp nga boole faat mm. kon loolu du lu woyof de du lu woyof kay xoolal aadama ñoñam yëpp ba ñun fi ñu toll fii ñaata milliards la ak ñi ñëwagul alxuraan ne bu fekkee kenn nga fàtt ci ñoom dafa mel ni ñoom ñëpp nga boole fàtt loolu woyeful de. Mm. kon nit war na toujours balaa ngay naan damay fàtt nit nga seet bu baax est-ce que da nga nekk ci lu ñu tuddee légitime defence foofu rek la ko islam maye nit nar laa song nar laa fàtt kooku am nga droit tam protéger sa bakkan. parce que tam doo ko doo ko doo doo doo asaaloo sa bakkan. bu dee légitime euh, défense la islam toppee dara. du la toppee dara. Mm-hmm. mais légitime tamit mu des nag ni ah bu dee réew moo xam ne la yoon mooy atte boo xasee ba faat bakkan rek foog yoon ñëw moom. Mm-hmm. yoon bi nag mooy wane ni da nga nekkoon légitime défense mais doone rek damaa nekk légitime défense parce que benn bandi mën na de rey ko ko neex damaa légitime défense. Mm-hmm. donc yoon mooy def ay ay ay gëstoom. kon bakkan rek yoon dafa war def ay gëstoom. situer responsabilité yi xam rey bi ndax ci tayef la. kële dafa song. Mm. far ñu rey ko. Mm. wala kële moo dem rey. ku ci nekk ñu daan la daan ñu war a daan. kon jàpp nga ni kon euh, ginnaaw ba ñu teewloo say kàddu euh, que ni euh, mbiru Barthélémy Dias tey jii ba tey ni mu nekkee ci kanamu yoon donte ni nag moom mooy interjeté woon appel loolee day baax ngir ñu gën koo war a mun a leeral. foog ñu leeral ko. Mm-hmm. ëpp naa def ëpp naa def bañ koo leeral ba ma déggee ñenn yi sax ñuy wax naan xaw ma Ndiaga Diouf la tudd. Ndiaga Diouf yàlla na ko yàlla yërëm xare ko àjjana. benn la woon rek. Mm-hmm. jaay boppam mm-hmm. dégg Euh, faat nañ ko na yëfi yem fii ma ne subhanallah moom Barthélémy mi sax ba mu defee conférence de presse euh, wax na loole d'ailleurs sax ginnaaw loolee ki nga xamante ni moo di euh, suñu grand di Pape Ngagne Ndiaye feefay ca TFM ba mu ko mm, dalalee sax dellu siwaat na ci ba mu ne bu dee dafa heurté mu ngi jégalu mais ah. ci kàddu yooyu waxoon na ni way juuru Ndiaga Diouf maa leen di fàttali seen doom vulgaire nervi la woon te loole ñu bëri rafet lañ ko ginnaaw ba ni ki moom way làqu la loolu ñaaw na trop mm. ñaaw na trop te je crois que sax dégg naa xaw a mel noonu mm. na trop kon ñooñ joxuñu war ma bakkan doomu aadama mm. parce que képp nga xam ne mi ngi bëgg a tey jiite Dakar nga xam ni c'est presque un état dans un état mm. puissance am bëgg sax xëy na jiite réew mi mm-hmm. kooku soo commencé wax yu mel ni ku jar a ragal nga war a doon mm-hmm. war nañ la ragal parce que eh, da war a am hauteur mm-hmm. c'est pas parce que daf la concerné personnellement que da ngay néewal doole eh, bakkan man li ma doon xaar ci moom mooy mi wax ne jote nañu ñoom ñu ñëw song ma bëgg dal sama kaw mm-hmm. ma défendre euh, bakkan rot ci mm-hmm. léegi nañ ko yóbbu ci yoon euh, lu yoon atte ma nangu parce que ci république laa nekk nangam nangam nañ ma garantiral procès bu juste loolu laa doon xaar mm-hmm. mais pas ay bakkan bi amul solo wala nervi bi amul solo tey ji Barthélémy Dias bu amoon doom boo xam ne da dañu ñëw rek ne ko rey nañ ko fële da doon xeex parce que nervi la te man xëy mën na am sax mm. xale bi dañ ko proposer benn cent mille comme ni ñu koy defee Sénégal mhm. léegi rek wala ci lu nga xamante ne sax ay waajuram duñ ko yëg duñ ko yëg mhm. est-ce que bu ñëwee fekk ko këram ne ko sa doom faat nañ ko fële rek am benn waay bu génn daal ne ah doomu Barthélémy boobu nervi la rek dafa ñëwoon fële Fatick ñu rey ko dana ko neex mhm, du ko neex kon moo tax ma ne la ñun ay homme d'état dañu manqué Sénégal trop homme d'état femme d'état ak ko ñoo manqué Sénégal même yéen jigéen ñi sax ma euh, tooñaa leen ci tuuti <laughs> xoolal yenn jigéen ñi ngay gis député loolu loolu muy depuis dàkkasante rek. lu leen neex la ñuy def assemblée. nii lu leen neex mais. doorante xasante saagante ah, te ay kilifa benn jigéen diriyanke dana wax ba pare da nga naan mais kii kii kii kii fan la jaar ba dugg fii. ba nekk fi député amul dara lu mu wax luy intérêt général Sénégal. Mm-hmm, mm-hmm. à part xas la tudd sax sa ndey boo juumul. Mm-hmm. Ah, Ah, yow xam nañ la sa tante xam naa ko bu boo fi. dof sulonte mboot toroxal waxante lu ñaaw. waaw luñ la xamal de weer la. Hmm, dafa doy waar. loolay Sénégal. on manque d'hommes d'État de femmes d'État des députés responsables. Hmm. des gens qui gèrent nos institutions publiques responsables on manque de ça. Hmm. fan yii rek xaw ma kan laa ko doon ko mais est est gouverné fi ngi xaarante jigéen ñaa ngi saaga. góor ñaa ngi saaga di xeex. boo demee ci institution yi nga dem ci benn ministère wala foo dem nii tey. Ah, boo duggee. man de personnellement noonu laa koy ressentir li may jëkk a ressentir mooy dama naan est-ce fii am na autorité. da ngay dugg nuyoo kenn la fay. Mhm. nga dem ci benn bureau doo fa fekk kenn nga woote ñu ne la directeur bi génn na. mais je me suis dit mais est-ce que ce pays est gouverné. Mhm. actuellement bonne question. donc attention. Mhm. kon ñu jàpp ni kon boobee dañ ko dañ ko dañ ko. dañ ko dafa war a dem yoon. ala kulli xaal yoon atte ko. Euh, ku nekk la la ci yoon wax. Euh, muy noonu euh, république. ak justice sax moom procès bi renvoyé war nañ ko ci 2 mars. ah oui il faut procès bi am bakkan moo rot. Mhm. mais procès bi bu amul Sénégal yàqu di. Mhm. parce que après tous les jours dina fi am xeex bu fi am nit faatu ci wala gaañu ci. Mhm. kon après nuñ koy lijjanti te du am mucc. ah te ku ci nekk ñooñu ñëpp doomu jàmbur lañ. d'accord kon nag attention. ci côté boobu moom je suis impeccable maa ngi koy maa ngi koy maa ngi koy Barthélémy Diaz. maa ngi koy duut baaraam ci faute morale boobu mu def. ak faute politique sax. pour ku am ambition euh, politique. Mm-hmm. ngay def lu mel noonu dafa waroon xool ne bakkan rot na ak wan nit ñi ne que man sama intention mosul doon di faat bakkan au contraire di ñoŋal bakkan waa Sénégal laa bëgg mm-hmm. kon lii euh, xew-xew la boo xam ne noonu la ma bettee ma taxawee ca na ma mën a taxawee léegi man loolu laa doon xaar discours de auteur boobu am na solo imam euh, Abdou mi may xamal ni ñu cëraloon ci waxtu euh, jeex na waaye nag mënu fay ñëw tam ba dem te doo ñu fàttali euh, lan la diine wax ci affaire de Miss parce que tamit fan ñu nekk nii moom coowal Miss Sénégal ba tey mu ngi ci actualité bi donte ni nag féministes yi jot nañu déposé lu toll ci 300 plaintes ci kaw organisatrice bii di Amina Badiane naka nga jàngatee coowal Miss Sénégal